sëñ Cheikh euh, xibaar yi ñu tàmbalee ko ak euh, Cheikh Yérim Seck ak euh, Bougane Gueye Dany ñi ñu bàyyi ñu ñibbi ak Kader ja muy ay dossiers yoo xam ne dañ koo classé sans suite. classé sans suite maanaam mbir moomu féete na boor ñoom ñi nga xam ne ni démb lañ leen defeere woon Bougane Gueye Cheikh Yérim Seck Kader Dia fi mu nekk nii nag libéré nañu leen ñeen doon toppee bokk na ci diffamation diffusion de fausse nouvelle Bougane Gueye Dany moom ba ñu ko libéré la dem jàkkaarloog taskatu xibaar yi. Euh, dellu si ci circonstances yi ñu ko téye woon ak euh, waxtaan bi doxoon ci digganteem ak enquêteurs yi euh, moom nag dellu si waat na delluwaat na ci wax yi nga xamee ni moom moo taxoon ñu téye ko muy chiffre yi nga xamee ni premier ministre daf ko avancé woon te moom Bougane Gueye Dany mu contesté ko Y'en a ñoom tamit di naqarlu lu ñu jàppee ni ay dérive la jamono jii ñu ne gouvernement bu Sénégal moom moo koy def Aliou Sané ak ñi mu àndal di naqarlu tamit interdiction manifestation yi nga xamee intérieur mi ngi koy def euh, jamono ji euh, di euh, ñaax nguur gi ñu liggéey te bàyyi arrestation yu bari yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy def kii di Madiambal Diagne moom te aéroport la ñu ko bloqué njiitu avenir communication doon tukki moo xam ne ko ci X ex Twitter ni police des frontières dañoo jot ay instructions ngir rek nangu ci moom passeport diplomatique te moom nee na mësul yor document boobule soxna naata jërëjëf sëñ Cheikh dinañ yaatal xibaar yi ci ñaareelu pàcc bi euh, incha allah dinañ ànd ak Souleymane Niang itam ci euh, jàngat bi muy njeexital yi conflit bi am fële ca Israël diggante Israël ak Palestine yi mu mën a am ci wàllum koom fii ci réew mi Khalifa Ababacar Sarr moom moo jiite Sonaged dinañ ko dalal itam ci ñaareelu pàcc bi ñu dem xooli ji xibaaru bi ci réew yi ak Maimouna Ndiaye Maymuna ñu tàmbali wax ci Israël mi euh, songooti ci guddik démb jàpp tey jële ci suba euh, bët Saalum ba ca Beyrouth. ni nga ko waxee noonu la soxna naata cong yi mu ngi woy euh, ñu ngi xamal sax ni am na juróom-ñeenteelu soldat boo xam ne jot naa faatu armée bu Israël nag di dem di song rek combattant yi fare ci Hezbollah bi dem ci frontière bi nga xam ni foofu la ñuy amalee seen i ñaawteef ci ñoom nag bokk na ci fukk ak juróom combattant combattant yoo xam ni bokk nañ ci mouvement chiite euh, bu Liban ñoom it dañoo ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci l'armée bi euh, bu ñu fa jógee France la ñuy dem ak djihadiste bii di Peter euh, Cherif bi nga xam ni dañ ko tëj giir gi dundam ki ko ki jël dogal bi mooy cour d'assises spéciale bu Paris gannaaw nag moom bi mu jàppee ni dafa lëkkaloo nag kii di Chérif Kouachi ñoo defoon ay ñaawteef ca Charlie Hebdo ñu ngi koy fàttaliku ci atum 2015 la woon ci noonu sax jotoon nañoo jël ay humanitaire lu toll ci ñett euh, daal di leen ni teg loxo nëbb leen jant bi euh, kenn xamul woon fan la ñu dem ak ñoom ci atum 2011 la woon euh, lii nag cour bi li mu wax rek mooy même buñ leen bàyyee ñu dem fii ak jamono dinañ tëdd sax gën gaa gàtt ñaar fukki at ak ñaar ñu dem RDC RDC foofu nga xam ni dafa am ak gaal bu suux ba juróom-ñaar fukki doomu aadama daal ci ñàkk seen bakkan nee nañu nag chiffres boo moywul mu yokku ndax kat équipe de secours ya ña ngay dem di def seen kéem kàttan euh, ngir euh, sowe leen bu ñu sukkandikoo ci gouverneur bu province ba moom li mu xam ne rek mooy euh, navire bi dafa surchargé woon ndax yeboon na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti doomu aadama lim boo xam ni waru waru ko woon yàpp fi toll nii nee nañu billan boobu xam naata tam mën naa gën a yokk Nigéria lañuy tëjee xibaar yi fare di xew foofu nga xam ni limu doomu aadama yi suuxaat ci ab gaal bëri na euh, fi mu toll nii nee nañu euh, fanweer ak euh, juróom benn faatu nañ ci te boo moywul day gën a yokk mën naa dem sax ba ci téeméer loolu équipe de sauvetage yi nga xam ni ñoom la ñu jëloon ñu nekk ca béréb ba ñoom ñoo ko wax wante ñi ngi woyal wër bi nga xam ni ñi ngi bëgg a sowe def seen sem seen seen kéem kàttan ngir jàppale ñi nga xam ni ñoo loru ca gaal googu. Hmm, mu doon xibaaru biti réew yi jërëjëf Maymouna Ndiaye dañuy ñëw dem xooli ji météo du jour.